xalifa maa ngi lay nuyu bu baax a baax te di rafetlu sa tànk fii ci ndakaaru ma yaakaar de dina doon barke ci ñëpp fii ak li ngeen fi tabax muy magal yàlla doon màndarga ñoom ñëpp maa ngi lay gërëm ak sa taalibe yëpp te di la wax ne sunu diggante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 nee na incha allahu dañuy bokk Pastef ndax jaamu yàlla lépp a ngi ci biir. nee na xam na itam rafetal ci diine la ca diine bëgg xam na lépp. nee na xam na itam rafetal googu li ci nekk ci diine yonent yàlla Isa nee na nee na rafetal gu rëy la suñu def ci diggante rafetal suñu diggante ak ba suñ suñu borom ak diggante suñu boroom ak jaamam ñi